loolu la am na am na yeneen yoo xam ne itam mun nga koo def waaye li ma wonee noonu lu baax lay itam waaye yooga bi gis naa daal dafa baax trop képp ku koy def dem booy def yeneen exercice waaye yoga dafa utee ak moom parce que yoga bi yaa ngi xëcc sa sa joints yi te joints yooyu da ngay xalaat yow sin sa yaay bu mu la juree bu mu la doon dàmpa bu nga nekkee lii yow kañ nga gëj a dàmpu kon nag nga xam ne yooga bi tam jël na place boobu parce que nu ngay stretcher di def ay ay kii mouvement yi nii daf lay dimbale ci sa joints yi daf lay dimbale sa gannaaw bi sa ndigga yi sa tànka yëpp daf la dee dimbale da ngay gis yeneen méttit yi ngay jàmbat doo ko jàmbat te dama doon dama nekk di may nit ñi courage ku nga xam ne yaa ngi toog te nekkuloo di def exercice na nga jóg nga koy def parce que dafa am solo trop bu dee da kii high blood ni boy def ay exercise ni ak yoga ni daf la day dimbalé parce que da nga yiss lu beuré dem saw di dem hôpital di dem complain wala di dem di check budé da nga am docteur bu nga xamné mo lay gis dang koy dimbalé mom tamit parce que mom tamit daf ci buga ngay def ay exercise pour dimbalé sa bop exercise bi daf lay dimbalé lu beuré et paré xaliss bu ngay jëné di dem Spain boy def exercise daf lay dimbalé té ñun fi dina ne seerul 125 lañuy def bu dee membership card ñu ngi koy payé 25 dollars waaye loolu yëpp ñu ngi bëgg a pour ñu ñu mun a ñu xëcc ñi ñi ñu mun a ñëw dem yoga ñu ñëw exercise waaye maa ngi ñaan suma bépp mbooloo jigéen ak góor yi yëpp ndax ku nekk jóg di yëngatu dafa am solo trop daf la dee dimbale ci sa wérgu yaram même bu fekkee sax da nga am yaram sax waaye mu ngi lay dimbale ci sa xel da ngay gis lu bëre complain yi bëre ay feebar yi bëre doo ko jàmbat waaw bu ñu ñu di jàmbat parce que yaram booy toog benn place day jàpp waaye booy jóg di yëngal sa yaram rek ngay ñaxa li moo ngay ñaxa yaa ngay faj sa bopp parce que mun ngaa dem egg kër ga nga lekka lu la neex nga tëdda relax waaye maa ngi ñaan jigéen ñi yëpp nañ jóg ku nekk nga wàññi lu nga xam ne yaa ngi ko doon lekka lu nga xam ne faat na nga wàññi ko ci sa dunda na nga lekka lu nga xam ne dina la dimbale bul gis lekka bu neex rek nga dem ci ba mu ëpp da ngay wàññi sa lekka maa ngi ñaan ñëpp nag waaw euh, Ramatulaay ah. yoga comme ni nga ko ni nga ko gisee si tape bi rek mhm. comme xale bi ñu doon dampa bi mu nekkee xaleel soo demee ba mag xam nga duñ la dampaati mhm. waaye yoga bi dina fa mel daf laa delloowaat nga nekk ndaw mhm. because dégg naa ne musuma koo def na waaye according to nit ñi ak li ma gis léegi soo ko defee sa mind bi dina relax doo stressati because adduna bi bari na problème léegi everyday problème so yoga classes ku ko saxoo di jël rek di def rek yaakaar naa stress dina la dal. waaw yoga sax dafa dafa dafa baax si yaram ah, awa. Mm-hmm. exercise si boppam moo baax si yaram parce que dafa tax sa deret bi mu daw dafa tax sa joint yi tamit ñu free mm-hmm. comme laag yaa ngi war a toog si biir office ah, from ah, eight o'clock si suba ba dema ko six o'clock yaa ngi type yi nam aate yaa ngi binda comme nag soo def ay exercise yu mel ni yoga ak yooyu noonu mun naa free sa yaram bi sa système bi yëpp dina mun a relax waaw ba tax na bu ñu jógee ko si yoga classe boobu rek léegi dañoo am ku ñoo invité comme ni ko gars yi waxee ku ñoo invite. Mm-hmm. kii nag moom euh, ku màcc la ku xarañ la si lu moo def euh, mu ngi fii di liggéeyal ñun ci biir GRTS te suñ ne jamono ji rek. suñ xel dina dem si kenn. Mm-hmm. mooy Mama Dieng mooy Mama Dieng mm-hmm. kon rek euh, dañ ko fee dalal léegi léegi. Mama Dieng wax ñu lan la umba. waa mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek eh, tey moom kiñ dalal si suñ studio bi mooy eh, Mama J boroom jamono ji ñu bàyyi ko rek mun nuyu wante gars yi. waaw mbokk yi maa ngi leen di nuyu fii eh, di kontaan nag ci li ngeen ma invite tey si mm-hmm. seen programme bi mm-hmm. di rafetlu programme bi lool. waaw maama jàmm nga fanaan. jaama rek waaw maama si jamono ji ñu toll nii. ñu ngi wax ay indi ah, international women's day. Mm-hmm. Ah, international women's day nag du daanaka du benn fan. Mm-hmm. dañ ni weer bi yëpp lañ ko jagleel jigéen ñi. Mm-hmm. te yow nga yëngu si jamono ji jamono ji nekk ah, programme boo xam ne ëmb na fi jamono yi suñ ko seetloo bi ci gën a am solo bu gën a am si ñeex gi mooy ne. suma xool waaye suma xool nag moom mu loo xam ne jigéen ñi li ñoo jànkuwante seen néegi sëy ñoo seen goro yi ñoo seen jëkkër yi ñoo seen dikkandoor yi lu bëgg nga wax si International Women's Day bi jëmale ko sa programme jamono. jërëjëf Ramu kontaan naa ci laajte boobu noonu waaye laata may dugg ci loolu rek dama bëgg a fàttali nit ñi ne jamono ji programme la buy isi xew-xewi jamono kon ah, lépp lu xew rek ñun dañ ko dee isi si suñ programme bi ah, ñu ñëw nag ah, ci mbirum International Women's Day mm. man moo foog every day bési jigéen yi la mm-hmm. bés bu nekk rek bési jigéen yi la ndax nga xam ko xamuloo ko jigéen yaa ngay yëngu ci li nga xam ne moom lañ leen leen dee taanal mm-hmm. pour mu nekk seen tiim maanaam seen boppi waxtaane kaay mm-hmm. euh, mu nekk naka lu am solo euh, surtout naka ren euh, tomb bi nga xam ne moom lañ taana di violence against women and ba pare national team bi mu nekk economically empowering women economically violence against women buñ ko ko waxee mooy fitna yi nga xam ne moom moo dee dal jigéen yi euh, si lii nga xam ne moom lañ dee yëngu pour nag mun a dundal seen boppa dundal seen i njaboot ak seen i famille euh, loolu nag def dee bari si fànn bu nekk la. Mm. violence against women nit wax ko waxut ko nitaan koo dundee ci different ways. ñun ñëpp ku nekk fii nii am nañ violence yoo xam ne ñu ngi koo dundee muy si faro yi si mm-hmm. tool yi mm-hmm. ci garden yi ci marché yi ak si office yi ñoo liggéey nii sax am nañ violence yi nga xam ne moom la ñoo dundee waaye bés yu mel ni comme tey. ñu jagleel ko jigéen yi ñoom ñëpp ñu booloo toog wax seen problème foog naa am na lu bari lu mu dee wàññi si façon violence yooyu noonu. Mm-hmm. waaye bu ñëwee tamit si programme yi jamono ji. ba moom laa la bëggoon laaj sax mm-hmm. gis naa ne fànn suma xol bi ci jamono ji euh, um, lu am solo la ñu bari dañ ko dee xaar pour rek mun see jànga mun see dégg ay xibaar yu bari comme ñu si xol yi daal. léegi bëgg nañ nga wax ñu ban impact la loolu am ci société bi comme ndax léegi-léegi da nga dee mun gars yi lettre si suñ ko riidee ba pare dañ dee mun a am solutions or solve problems yi ndax naka la waaw luy am nañ si case yu bari awa mm-hmm. yoo xam ne nit yi dañu dee yónnee seen tawati xol yi parce que lañ ko dee waxee seen tawati xol yi seen naxari xol yi mm-hmm. ba after suñ ko riidee ba pare xam nga nañ lay dem def vox pop ah, ndax loolu moo dee tax sax nit ñi dee yónnee seen lettre bi parce que ñun rek xëj na suñ xalaat du doy waaye mbooloo ñu ne moo ëpp doole mm-hmm. moo tax na dañ dee génn si biti ah, si loolu nag tamit dañ si dee am problème de Gambian si pour nga dem defi vox pop fii soona waaye nag yàlla daf ñu dee dimbale liñ si hmm. uh, nga xam ne lool lañ si nama dañ ko si dee mun a am yenn yi nag na nag waaye dinañ leen si som rek yoo xam ne loolu dina nekka loo xam ne nit yi dinañ xam ne stories yi nga xam ne moom lañ dee génne nekku ne luñ dee fabricate la real stories lañ hmm. yoo xam ne la nit yi ñu ngi koo dundee gis nga fii am na lu bari lu nit yi dundee amuñ fuñ ko jooyee soo fii rek suma xool bi rek mooy seen hmm. solution bi nga xam ne foofu lañ foog ne foofu la seen aajo yi day mun a fas eh, fajoo si programme yii nii. Mm-hmm. Um, success story si waaw mm-hmm. mm, mun naa la seetal na uh, mm-hmm. comme jaaxa boobu noonu nga xam ne mu ne moom mu ngi 17 years la am moom amagut sa 18 yaayam papaam dañ gaañu mu am mu am magam boo xam ne kooku la dëkkal kooku moom nag mu ne unfortunately mënut a xam extended family because si magam bi la ba pare man xaw ma sax kooku ban façon yu mag la mag bi daal moom foo dee iñaane si yu bari hmm. imagine xale bu nekk at that age 17 years man first time ma foogoon ne du dëgër waaye bu ma toppee story bi because bu ma ko waxee hmm. jël na three days maa ngi investigate story bi pour seet ndax lu ma wax dëggal la ndax du dëgg waaye su ma ko laajee rek the ma dee wax ma xam ne nag kii dëgg la li moo dundee loolu la ma wax ne hmm. so mu ne magam bi euh, daf ko dee dugal na ko school moom duggee school yàlla def xelam bi neex waaye magam itam mu ngi am beneen doom boo xam ne moom tamit daf ko dugal school ñaar waaw ñu dugal leen school ñoom ñaar waaye kele moo dee raw moom rakaam bi moo dee raw hmm. mu gis ne tamit loolu xam naa xam neexu ko xëj na mu hmm. fiil si jalose hmm. yu noonu mu ne nag yow léegi fu mu nekk nii duma dee am ko maa dimbale si kër gi dama bëgg pour nga maa dimbale si eh, liggéey kër yi raxas bool ak ah, bale néeg ak yooyu noonu ba pare nga maa mun a ko ne suma doole li fi noonu munuma leen a mm, fayal mm. leen ñaar ñëpp pour ngeen demandoo school imaginal mm. faraka nga génne ko because of moom moo gën a neexal sa doom mm-hmm. mu nekk ci loolu xale bi tamit yàlla dimbale ko ndax façon yooyu yàlla daf leen defara la dimbale mm-hmm. mu dimbale ko moom tamit muy leetantu di jàngantu yi nen métier yi sew ba fi mu nekk nii daf dee leeta leeta yu rafet sax ba pare dafa gis nga mbuba yu ñoo sol nii mm-hmm. dafa dem si ñawkat yi mu nekk foofu tamit nga koo xam ne uh, dimbale rek ba pare moom it mu fas jom si lim nekk yàlla dimbale ko si uh, julli jotee daf dee amun a am xaalis bu bari su ñëwee moom according to wax daf dee jël xaalis xaalis bi ne magam ne am lii la am man tam lii laa bëgg a dem jëndee pour julli bi hmm. waaye magam ci loolu daf si dee fiir daf ko dee wax ne euh, léegi mun ngaa defal sa boppa moo tax léegi nga maa jox xaalis bu tuuti bii nii hmm. imaginal because yow fu mu nekk ni kooku nekkaatu